sax tàngoor gu bari gi ak koor mbooloo gu takku moo taxtu coalition Kolda. instant yii bi ñuy ñëwaat sax xool thermomètre bi il était à 42 ci weeru koor ngeen gàttandu ñu presque à 2 di daw di topp caravane bi ba def rassemblement bu exceptionnel bi nga xamante Kolda rek la amagum. Bassirou Diomaye Faye dina xallu jafe-jafe yi nga xam ne askanu ko Kolda am nañ ko ci wàllu paj mi bu sukkandikoo ci moom couverture sanitaire ba ca région ba dëppoowul ak norme bu organisation mondiale de la santé. Ici, le ratio population santé est de l'ordre de santé pour 199 fois la norme de l'OMS. ndax loolu jaadu na. jafe-jafe yi nga xam ne itam population bu Kolda mu ngi koy jànkonteel mu di li jëm ci wàllu ndox mu sell mi buñ sukkandikoo ci candidat Diomaye fay Kolda région de Kolda yëpp un ménage sur amul accès à l'eau potable maanaam mënul am ndox bu baax y a treize pour cent de la population de Kolda. ñoo am ndox robinet. fii ci Kolda Bassirou Diomaye Faye di jël ab engagement ne dina tabax euh, ci département Sénégal bu nekk ab centre de formation technique jot na sax promettre juróomi milliards artisans yi juróomi milliards ci at bu njëkk ci mandaam. ma delluwaat di wax artisans yi ne kon au-delà de la formation dans les centres de formation technique man je à des certifications d'apprentissage am na ñoo xamante ne. jaaruñu ci école moderne pour mën lu mën ci oto mais dafa laaj ñu valoriser compétence yooyu ba pare nag accompagner leen à travers un fonds de soutien de l'artisanat et je m'engage la première année de mon mandat en faire un fonds de milliards. bu ñu yeggee sa Kolda nag caravane bi dafa daldi di xaaj benn pàcc ba ànd ak Diomaye fay ca Fatick beneen ba dem ca sud-est du pays ak Ousmane Sonko.